jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. canta ngërëm ñeel na leen mbokk internet yu 5M TV Sénégal dañuy wéy rek di ànd ak yéen di leen dégtal xibaar yi la ca gën a fës itam ñu àddu rek jëm ci kàddu yi nga xam ni Alioune Tine yëkkati na ko moom mu mel ni kon bokk na ci lang gi ngir rek jàppale Babacar Fall moom taskatu xibaar bi nekk foofee ca RFM ginnaaw kàddu yi nga xam ni kon moom yëkkati na ko rek teg ko ci njiitu réew mi def nag gis-gisam ginnaaw itam njiitu réew mi kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko wax jëm rek ci yenn de revue de presse yi yi nga xam ni Sénégal fii ñu leen neex rek lañ koy defee mbir mi dafa mel ni comme théâtre sax mu mel ni kon loolee ñaawlu nañ ko jëm rek ci kaddu yi nga xam ni itam gis nañ ko ci ñenn ci askan wi waaye itam menace de mort yi nga xam ni yëkkati nañ ko teg ko ci ndoddu journaliste bi moom nak ginnaaw chronique ba nga xam ni moom la doon def doon rek ŋàññi ñitu réew mi ci kaddu yi mu yëkkati woon nag ci ay nawleem ya toog ginnaaw muy wax jëm ci taskatu xibaar ginnaaw xool ñooñee di def ay menaces de mort jëm ci taskatu xibaar bi waaye itam rek ñu gën a aar lu jëm nag ci wàllu karange moom taskatu xibaar bi lii di Babacar Fall